di leen jéggalu di leen jéggal ci barke bi laa ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi di leen xamal ni nun bàjjanu goxu umul xuraa du umul xuraa de mboolem lii fanweeri quartier yi ak juróom benn li ci basiiru fay boot muy bàjjen yi nga xamante ne ñoom la tànn mu dale ko fii ba muy ñaata bàjjan fanweeri bàjjan yu ànd ak seeni action nu topp nag ci ginnaaw basiiru fay seetu nu dara bëggu nu dara toppati Basiiru muy daanu jóg nuy daanu ci ginnaawam ba sunu borom yàlla dimbali nu ci barkeb Cheikh Moustapha Mbacke soxna Aminata Lo sëtam bu baax bii baaxee nu lii mu baaxee nu ko kon dañuy sant yàlla julli ci yonante bi waaye nag nuy sant Basiiru Fay di ko ñaanal di ñaan yàlla képp koo xamante ni yéene nga umul xuraa jàmm ñaanalal Basiiru Fay am jàmm su ko amee umul xuraa am ndax Basiiru Fay xale bu yaru la yàlla moo ko jiital fi sunu kanam nu julli ci yonent bi di sant yàlla di ko ñaanal yàlla li nu ko yéene yàlla na dal sunu njaboot te li nu ko yéene lu ne mu ngi cay xëy di ca gont suba bëccëg guddi ngoon nuy ñaan nag ci barkeb sëriñ Touba seex Cheikh Ibra Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaynde ma li nga yootu ci sa yoonu maam yi yal na nga ngëb lu ko ndax nun danoo naanum ndox daaw di naan rek ndox sunoo jafe gaa ndax Serigne Saliou bañ ne salaamaaleykum la ni forage baa waaye nag la ko xëccaat ba indi ko ci sunuy buntu kër mbàkke génnoo ca kon tey soo nu andilee ambulance bii mbàkke nuy julli ci yonante bi di sant sa maam waaye di la sant di sant sëriñ seex mbàkke sa baay di sant seex moustapha sa maam di la ñaanal yàlla ci barke yonnanti bi ak sëriñ tuba ak képp koo àndal ba ngeen ñëw fii ci bokkutal mu mag baaraka ci quartier bii ñuy wax umul xuraa ak li mu boot no ngi lay ñaanal yalla ci daraje la ilaha illallah lo yotu yalla nang ko tey ta li nga xamanteni mo am lan lay wutle takku nanu ci deugar nanu ci te duñu ci delu gannaaw ak ku nu yaakar ak ku yaakar nu yaakar la ñu yëkëti kaddu sant ginnaaw bi ñu nuyo ñëpp sant bi nak ñu ci jital sëñ Cheikh Abdou ci li nga xamne ne nako tek ko teg suñ loxo ngir ñu jox ko poste de santé umul xuraa muy ambulance bo xamne bu muccu ayib la ambulance bu dëppoo ak jamono ambulance boo xam ne njëriñ li mu am xëy na moom mi ko joxe sax xamul lépp ndax ñun ñi ciy liggéey nga xam ne ñu ngi nekk fële ci hôpital Sëñ Mbàkke Madina tey saytu post de santé yi nekk Touba yëpp te ñu toll ci limu ñaar fukki poste ak juróom nga xam ñaar fukki poste ak juróom yooyu ñi ci am ambulance matuñu fukk nga xam ne poste yooyu képp ku ci yittewoo ambulance ak waxtu wu mën doon da ngay woote fële ci centre de santé ba muy hôpital Sëñ Mbàkke Madina ñu yabal ambulance bu ñëw jël si malade bi ak foo mën a nekk fii ba Belel fii ba Bogo fii ba Tindoodi fii ba Madiana fii ba Xelkom fii ba Ndoka fii ba Sura Daaru Marnaan Mbusoobe Umul Xura Saam fépp foo xam ne rek malaat dem na fa nekk ci poste de santé bi te ñu war ko jàllale suñu wootee ambulance bi fële ci hôpital Sëñ Mbàkke mardi la lay bàyyi ko ñëw jël si la kon ngeen gis ne loolu su fekkee ne ambulance yi doyul dina am ñoo xam ne foog ñu nekk ambulance bi yóbbu kenn ba ñëw soog la jël si kon ki nga xam ne dafa yëkkati ambulance jagale ko poste de santé teggil na population yi coono boo xam ne ñun ñi ci nekk ñoo ko xam ndax ci jamonoy nawet nga xam évacuation yi dafa daan bari trop léeg-léeg ñu woote taseeg ambulance bi dem fu mel ni Bogo wala mu dem fu mel ni Bellel nga xam non seulement day dem jëli ji malade bi foofu mais su ko jëlee da koy yóbbuwaat ci benn hôpital pour référer ko fa nga xam keneen ku wootee da ngay xaar ba ambulance yooyu wàññeeku soog a jublu ci yow kon tey suñu amee poste bu mel nii nga xam ne fi mu nekk dafa sori béréb yi ñuy évacuer béréb yi nga xam ne mooy structure de référence yi lu demee ni hôpitaux yi muy ndaamaatu muy hôpital matlabul Matlaboul bi nga xam li ëpp ci évacuation yi ci structure yooyu lañ koy def kon suñu fexee ba fii am ambulance loolu ñun ñi ci nekk xam nañ njëriñ li bu baax te it xam nañ coono yi nga xam ne teggal na ko nit ñi te ambulance yi bëri na loo xam ne guddi gi dina ñëw lu man ñetti yoon ci poste bi di nga gis ambulance boo xam ne daf fiy jóge di dem àggagul ñu woote waat ne am na ku ko yittewoo kon lii ñu ngi koy rafetlu bu baax di la ci sant tey wax ne du guléet ndax maye na mbusoobe ambulance loolu ay weer rek lañ ay quelques mois lañ ci def te mbusoobe itam poste bu mel nii la ndax dafa sori béréb yi nga xam ne ci la ñuy référé nga xam bi mu leen mayee ambulance ak léegi loolu impacté na taux de mortalité bi ndax tey soo mayee ambulance ambulance bi dina tax ne ku doon yéex a dem ndax di nekk ambulance ba di ci loru loolu daf ko fay jëlee